alors euh, Charles ni <laughs> jërëjëf <laughs> fan yi ay ndox mu tàng waaw lu ko neex lay def mais garab moom petit déj. dina ma ko waxee keroog ba tey seetlu <laughs> nga lool. ndox mu tàng bi daal ah, ça me fait du bien daal damay sentir ne am na lu muy def. ci kaw defar nii sant ko Khadija Jaxate alors Khadija maa ngi maa ngi nuyu bu baax sama bàjjen Ndeye Sina moom moom mm. Aliou Sow lay déggee da koy seetaan nag. da koy seetaan mi ngi noonu mi daal di la bàyyi nga waxtaan. Fatka tooñ nga ñu. dëgg la dëgg la def na tooñ nga ñu. dëgg la dëgg la ko war a wax dinaa gën a góorgóorlu. waaw dëgg la nag ñu ñëw ci xaal bi yow. wax na ko comme ni ko ci commencement bi tey xaal la ñu ko daal yow lu tax nga jantal. yow sa mu ngi dem ne sa temps. xëy na est-ce que gis nga sa sourire bi nga am léegi mën nañu wax ci xaal waneel sourire lu Khadija mais mooy jekk taxawaay waay est-ce que mën nañu wax ci xaal soo bëggee soo bëggee mu noppi nekk Aliou Sow ci bàkki sëñ Touba maa la ko ñaan léegi mu noppi même ci xaal ay <laughs> Khadija euh, xaal nag moom daanaka kenn ñëpp ko présenté te xaal ñëpp ci plateau bi ñëpp xam nañ ko euh, je pense que te ñëpp dañ koy lekk mag gis naa ñu xam ne ne duñu lekk xaal mais xëy na dañoo xamul woon ngëneel li am ci xaal lekka ah. mm. am dañoo wérul rek dañoo wérul ku lekk ah? xaal waaw xamuñu yi am ci xaal <laughs> xaal nag mi ngi bokk ci famille bi ñuy wax cucurbitacée mm-hmm. euh, cucurbitacée rek moo englobé lépp loo xam ni mooy melon concombre courge donc loolu yëpp ci famille bi la euh, même euh, même euh, famille bi la parce que pastèque moom la ñuy wax cucurbitacée mm-hmm. et puis première cultivation yi ñu ngi ko gisoon en Égypte il y a de cela plus de 5000 ans Égypte ñoom xaal dafa nekk foofu loo xam ne dafa sacré tellement dañ doon wax ni sax que boo da bu njëkk ba bu ñu daan maye ñaar ñuy sëy mm-hmm. offre dot yi ñu doon joxe xaal la woon donc xaal lañ doon joxe comme première cadeau comme kii ñun ay iPhone ngay joxe ak yooyu ñoom xaal <laughs> <laughs> donc mu nekkoon benn xaal dafa nekk lu lu sensible loo xam ni ñoom euh, lu sensible la bokk na ci seen i euh, dundin mais tamit euh, originaire d'Afrique la Afrique première plantation yi foofu lañ ko observé mhm. xaal nag am na bu rouge am na tamit bu rosé mooy xaw a clair noonu am na aussi bu jaune bu jaune bi moom la ñuy wax melon mhm. am na xaal yu saf suukar am na yoo xam ne non sucré du tout la mhm. yu am pépin ak yoo xam ne amul pépin du tout et puis xaal xoox xoox bu ñuul bi ah euh, période bi ñu koy gën a nemmeeku nag muy en été été nag euh, muy tàngoor gi bu tàngee lool li koy waral nag mooy xaal ko 92 pour cent ci composant mi mhm. ndox la moo tax ñuy wax ni bu fekkee da doo naan ndox sax boo lekkee xaal mu compenser apport boobu noonu ndox moom mu war la indil mhm. euh, dafay tax doo déshydraté wu mhm. xaal am na lu mel ne potassium potassium moom mooy tax doo am ay crampes musculaires donc crampes yu par guddi et puis doo am ay courbatures yaram buy méttee fu nekk et tout xaal daf koy éviter bu baax dafa baax loolu ci xol. muy kër li nga léegi di fudd de kon war na lekk xaal. <laughs> dafa baax loolu ci xol euh, <laughs> Aïcha euh, Aïcha xaal dafa baax ci xol yéen ñii di def santé domaine boobu war ngeen ko xam graine yi euh, mooy pépin bi dafay dilater vaisseau sanguin yi ba tax na hypertension artérielle du la yàpp loolu et puis am na lu mel ni tamit caroténoïde loolu dañ koy gis la plus part ci mm-hmm. médicament yi. médicament bu ñu gisee dangay bind ci ginnaaw ñu gis composants yi caroténoïde la donc caroténoïde moom dafa am ci biir xaal. et puis bi ci njëkk mooy lycopène lycopène moo koy jox couleur boobu noonu mu am li lycopène bi aussi dafay tax euh, day réduire risque de cancer yi lu ci mel ni cancer de la prostate mm. du la yab donc cancer de la prostate boobu daf koy affaiblir et puis dafa am ci biir sodium ak potassium moom mooy tax en période de chaleur li ngay ñàkk loolu dafa bëri et booy ñàkk tout le temps di transpirer sodium ak potassium bi ngay am sa yaram dafay démaale boo lekkee xaal boobu moom mooy indiwaat sodium ak potassium boobu noonu yi nga xam ni yow yaa ngi koy libéré euh, source de vitamine C la moo tax ñu ne dafa baax ci gencive ak euh, ci ay bëñ day dëgëral bëñ lool et puis euh, xaal daf am na lu mel ne vitamine A pour ñi nga xam ne dañoo am ay problème mu bët dañu seen vision dafa flou xaal dafay leeral bët euh, vitamine A boobu noonu mu ci am moo tax euh, lépp loo xam ne jàngoroy bët la daf koy faj euh, yenn dëkk yi yu ci mel ni ay Togo wala nga dem ba kongoo dañ lay naan stimulant sexuel la ñoom dañ koy utiliser comme stimulant sexuel donc ay vertu aphrodisiaque yi mu yor ñoom loolu moo nekk ngëneel ci ñoom ci xaal boobu noonu ba tax ñoom ñu koy jëfandikoo c'est pauvre en calorie amul benn yoon calorie moo tax képp koo xam yaa ngi def régime pour mincir maanaam pour jeex dañ lay naan ngay utiliser xaal comme fruit préféré ndax amul dara ci calorie et puis boo ko lekkee da ngay gis ni même boo amoon sentiment de faim da lay rassasier parce que apport en ndox boobu noonu mu am la euh, lu mel ni colon foie rein ak voie urinaire yi maanaam fu saw bi di jaar et tout ça dafay libérer parasites yi ci nekk bu fekkoon dafa am ci biir ay parasites yoo xam moom moo lay teree saw bi di génn euh, xaal daf koy dilater de telle sort que euh, dafay fluide et puis colon yeeg foie bi ak rein bi daf koy raxas naturellement mhm. euh, donc ay ngën a rek a ci ama ah, ñu ci bëri dañuy laajte nag naka ngay choisir xaal mhm. parce que xaal jaaykat yi dañ lay nax mhm. mën nañ la gis xaal bi rek ne la eh, ñor na nga jënd ko dem sa mu weex taal mu weex taal <laughs> dañuy naan bu dëgëree bu diisee mhm. noonu lay gën a ñoree par rapport ak taayam mhm. bu ndawee mhm. waaye diis nga yëkkati ko mu diis et puis écorce bi mooy ci kaw euh, couverture xaal bi noonu jaune mooy ñor na xomb boobu boo ko laalee mu diis taay bi ndaw par rapport ak taay bi donc da koy xool par rapport ak taay bi rek bu fekkee dafa ngande waaye oyof boobu ñorul waaye bu ndawee ba pare diis nga xam ni boobu toog ba am écorce bu jaune bi waaw bunt bi jaune noonu mm. nga xam ni boobu ñor na xomb wala lu ci gën a yomb rek nga ne ko mu dagg ko nga ñam <laughs> problème mu ñëpp xam nga bu nekkee koor la par exemple ñu jëm waaw bu nekkee koor da nga koy jënd par waaw bu fekkente ne midi. léegi bu fekkente ne par exemple xam nga koor la da nga koy jënd par exemple ay midi. munoo ko ndagg ne ko ñamal ma après nga yóbbu. Mhm. da ngay obligé rek tëj ko parce que fii ba wala ba ba vingt trois heures nga koy lekk. ragal sax di après moom muy kii bu fekkee amoo frigo yooyu noonu da ragal. Mhm. donc yooyu yëpp tànn bi da am solo trop trop. moo tax moo tax ni comme ni ma la ko waxee rek par rapport ak taille bi poids bi ngay xool. Mhm. Euh, et écorce bi mooy foog na ñu lay ubbi noonu bu jaune rek xamal ni ñor na et puis koo lekk donc conservation bi nag xaal bëggul lu sedd bëggul lu sedd guy comme ay congélateur ak yooyu dafay yàq ferñeent yi nekk ci biir et puis dafay gaaw a yàqu day lax comme ni nga ko waxee noonu donc da def endroit bu cedd rek tàngul seddul entre 15 degré ak 20 degré Celsius donc loolu moom mooy conserver ferñeent yi am ci biir xaal bi et puis bi euh, plus de 4 jours dafay dañ mm-hmm. lycopène bi mu am ci biir boo ko téewee plus de 4 jours lekkoo ko consommé woo ko xamal ni ferñeent boobu ngi dem mm-hmm. Mm-hmm. et euh, la congélation tamit bu fekkee da ko bëgg a dugal ci fooy congelé def ko comme genre glace il faut que nga découper ko en petits morceaux def ko ci sachet plastique dugal ko ci congélateur boobu boo ko génnee ferñeent yi ci amoon yëpp dina ko kii mais de préférable daal xaal boo ko jëndee bu mu weesoo une semaine mm-hmm. bu weesoo une semaine rek ferñeent yi ci am yëpp dafay jeex et puis dafay changer goût sax mm-hmm. donc loolu mooy problème bi mais itam attention am na si ñoo xam dañoo allergie xaalis xamuñu ko boo lekkee xaal bi mu jox la ay symptômes yu ci mel ni brûlure maanaam sa gémmiñ gi mel ni luy lakk mhm. euh, baat bi mel ni luy lakk nga am commencé am ay picc ci sa lèvre mhm. xam nga ni def na la réaction allergique allez mhm. réaction allergique boobu moom la ñuy wax syndrome d'allergie orale syndrome d'allergie orale la lay def xamal ni ferñeent yooyu mu am ci biir yow sa yaram nangu ko immédiatement bu la defee loolu dangay dem hôpital ñu xool euh, naka lañ koo mën a fajee amoon na benn vidéo boo xam ni moom mooy illustré lan nga mën a def yan recette nga mën a def ci xaal donc xaal bu dee vidéo boobu yem na ñu tëjee ko rek ak euh, vidéo boobu d'accord ah. mi ngi noonu Khadija euh, plateau bi day ñi ñi ñi ngi taxam te ñu rek moom Aliou ngi rey boppam moom nii dañ koy xool nii rek ñii nii nii li nga wax léegi nee ku la ko defaral nga nopp <laughs> nga dogg ko parce que la wax nii non yi kuñ day neexal xol kon damay kontaan damay am nag inspiration mi ngi ku mu koy defal non <laughs> Fatou d'après li Aliou lay wax rek laa koy wax uh-huh. donc jéeg yi seetaan jël leen ci illustration rek comme uh-huh. Aliou Sow moom ku ko defaral mu nopp ko ah, da ngeen ciy gis seen <laughs> rek uh-huh. boo leen ko defal pare mbëggeel bi gën a. kii Khadija. non man bul fàtte ne que à la rajo tous les mardis je fais rubrique bio ah, voilà kii ah, euh, voilà. Ah, ak ban encore. <laughs> wérgu yaram ci wérgu yaram laa jëm dire que euh, di lekk xaal di dindi xoox bi baaxut. Mm-hmm. xaal bi ak xoox bi da koy boole mm-hmm. yëy parce que. xaal bi kese kese du ferñeent mais yëy yëy bi ngay yëy pépins yi moom mooy ferñeent parce que moom mooy raxas sa rein yi mhm, moom moo lay accompagner pour doo am problème saw ay ay prostate ay fistule yooyu du la dal su mhm. fekkente ne yaa ngi lekk xoox bi te da lay mhm. soo lekkee lekk dus comme ñi xam ne dañoo am problème ballonnement comme man xam naa ne bëri si ay morom ci plateau bi